xaw xam na xam naa ne xam naa ne xam naa ne yow laa koy joxaale comme information euh, nga ma ma tàgguwaale la si aussi sant la jàppal ne euh, procès bi dox si Ousmane

la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar vient de renvoyer l'affaire ministère public contre Ousmane Sonko au 8 mai 2023. Le ministère public et la partie civile le ministre Mambéignan, ayant interjeté appel, le rapport du procureur déposé, le dossier transmis à la Cour d'appel, donc les conditions sont réunies pour l'enrôlement. Mais l'enrôlement ne signifie pas le jugement les gens sont très vite allés en besogne pour dire qu'on n'a pas attendu l'expiration des délais d'appel. Mais vous aurez constaté que les droits de tout le monde sont respectés. C'est ce qui signifie ce renvoi, Ce renvoi consacre le respect de tous les droits de toutes les parties. C'est pourquoi le président de la juridiction d'appel a renvoyé à cette date pour que nul n'ignore et que le peuple sache que le droit est le droit seul est dit dans cette affaire et le droit sera dit. Mais quelle a été la raison exacte de, ce renvoi Pourquoi pas, faire l'audience aujourd'hui Mais c'est rare qu'on ait une affaire qui arrive donc pour la première fois sur la table d'un tribunal ou d'une cour d'appel, c'est rare, et je dis, de constater ou de voir les juges statuer le même jour. Vous avez vu que en première instance, il y a eu plusieurs renvois. Donc ce renvoi ne doit pas vous étonner. Mais il y a souvent des motifs de renvoi. Eh, il faut demander ça au juge qui a renvoyé d'office il a ses raisons. Et à partir de ses propres raisons, le juge, avec son impérium, a renvoyé d'office au 8 mai 2023. Le camp adverse n'est pas présent. Est-ce que, tout le monde Il faut lui demander ce qu'il pense. C'est son problème. <laughs> Le cas adverse ne m'intéresse guère. Ni ni ses ses avocats, C'est mon cas, le cas de Mambéna qui m'intéresse. Posez ces questions à ceux qui défendent ce camp. C'est un camp qui ne m'intéresse pas. De ce ce qui vous intéresse concrètement, maître, qu'est-ce que vous attendez de ce procès en appel Vous le verrez. Le moment venu. Nous, vous invitons à l'audience du 8 mai 2023. Maître, vous êtes satisfait du renvoi Ah oui, bien sûr. Nous sommes juristes, nous sommes des avocats. Nous respectons toutes les décisions des juges. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous respectons les institutions. Nous ne sommes pas comme les autres. Sans la justice, point de liberté. Sans la justice, point de vie normal, point de vie sociale. Nous avons besoin de normes. Nous avons besoin de juges. Nous avons besoin d'une justice. Nous n'avons pas besoin d'anarchie. Est-ce que vous attendez à ce qu'il soit inéligible Ça, ça c'est vous qui le dites. Nous avons une affaire qui est jugée, on ne parle pas d'élection. Nous ne sommes pas comme ces manipulateurs qui nous parlent d'élection, de, euh, de tentative de liquidation d'un homme politique. Nous sommes devant une justice. Vous avez vu le palais de justice de Dakar. Ce n'est pas le palais des élections. Ce n'est pas le palais des candidatures. C'est un palais qui garantit les droits des citoyens.

kon dàq bi ko dàq tey kay warul joomal kenn ci ma ci li ma foog amul fu bees lu ñuy màcc tey du du leen joomal yéen ndax fi ngeen taxawoon gis ñu renvoyé ak renvoyé rek kon tey bu ñu renvoyé tey dàq nañ ko ba le 8 mai ah mais loolu warul bett kenn ndax tribunal moom yàgg na di dàq. waaw wax na ko kay kii jiite nee na dama renvoyé d'office mooy man sama coobare bopp man mi atte dàq naa mbir mi ba le 8 parce que xam ni. attekat dafa am doole joo xam ni kenn am ko ci réew mi bu xasee ba toog sa robam janloog ñi muy atte moom rek mooy mooy mooy yore cëgal gu moom rek mooy yox impérieux moo am doole dàq wala tey laa koy attee kenn du ci mën dara kon moom rek moo xam lu tax mais li ma foog man mooy moom bëgg na ñëpp ku ne préparé xam ngeen ni procureur dafa def appel Mame Mbaye Niang def appel léegi dossier bi rapport bi procureur pare na ko jébbal na ko cour d'appel lu ci des lu may jàpp bis bi ñu koy atte waaye bis mi ñu koy atte bokkul ak ndax dañ ko atte ndax dañaa la bis sànga war nga ñëw tribunal ñu atte la waaye bis boobu mën na am kenn du la atte kon am nañu gaaw yuuxu coow naan dañoo bëgg a gàkkam dégg lii déedéet kay bu bu bu cour d'appel jotee dossier bi xam ngeen ne procureur bu defee appel ñëppay ñëwaat dañuy recommencer à zéro atte wan mbir mi dañ koy commencé fa ñu commencé woon

ñun duñu duñu duñu duñu yàq tribunal xotti war magistrat ñun dañoo gëm ni réew bu amul justice fu réew ma jëm kon ku ñu sàcc foo jëm ku ñu taal sa foo jëm ku ñu ñëw nangu sa jabar foo jëm mais il faut même justice nag ci réew mais am na nañu jóg ñëw pour taal justice yàq dere justice ndax ñoom gëmuñu réew mi gëmuñu institution yi loolu nag seen affaire la seen ceebu jën la ñun dañu gëm suñu justice gëm loi gëm yoon réew moo xam ne da nga bëgg salla salla sal sal sal joxeti sal fañe yoon ah jaxase yoon pour rek ndax xam nga ne da ngaa ragal yoon yaa xam li nga def fo tax nga ragal yoon nag ku def ku def ku def loo xam ne xëy na yoon dina rek sa digg foo jaar jéem a yàq dara yoon waaye ku deful dara yéen ñii ñëpp du ngeen xuloo yoon waaye yéen ñi ñëpp kenn du ci yoon kenn du saaga yoon ndax deful leen lu leen yoon di rek rab tëj ci kaso ku deful dara waaye ku deful dara kay yoon soxla wu la waaye nag

ma jàngale loolu boog booy bu ñu la attee ba pare te atte bi neexu la da ngay yéegaat ci cour d'appel ñu attewaat waat la attewoon kay amatu droit attewaat la waay boo amee tuuti xam-xam di nga xam ne ki attewoon moom eh, dama toog yow doo tudd Moodu atte nga ba pare toogal nii yaay attewaat loolu mooy appel boo d'accord nga dem cassation cour suprême moo tax nga yoon dafa teg ko tegalante yelleefu doomu adama daf dañ ko fonk Sénégal kuy wax rek di yàq deru justice di yàq deru magistrat yi xamuloo waaye nag ku def lu ñommee di nga ragal yoon te boo ragalee yoon rëq sa ndigg loo mën def mooy lu bay yàq der yoon pour ëllëg lu ñu la teg nga ne ah yoon kay amul ci réew mi waaye nag ñii fi toog ñëpp ci yéen kenn yoon owu leen yéen bu ngeen deful dara lu leen yoon di ooyee waaw ku deful dara nooy wuyee ji yoon ma ne ku deful dara waaye nag maa ko def te kenn du ko wax olof Njaay mu ne déet waay maa ko def te kenn du ko wax du am Sénégal maa ko def te du ko wax déet waaye déet loolu lay wax maa ko def te kenn du ko wax déet waaye déet waaye boo defee loolu def foo jaar jàllaw yoon yoon a ngi nii palais de justice ñi ko bëgg xañ mu bokk ci jongante yi loolu laa wax léegi yéen a ngi ni ñeneen a ngi nii déggu leen ni ñoom dañu am affaire ak yoon boo waxalee doom aadama dara loo xam ne mën a yàq deram mu ne ah man dañ maa ji ñu damaa sàcc ay milliards te man dama am avenir politique am parti politique bu ma bokk am bëgg fa tekki ëllëg mën naa ma nekk président du Sénégal man Mame Mbaye Niang am na lu ma bëgg sama réew bu ñu ma yàqee yàqal ci ay vingt neuf milliards ëllëg kenn du ma woteel mu ne waa léegi nag kii yàq sama der nañoo sasal ko fii mbax na nekkee benn fii amul ministre amul chef de parti amul maa yore ba xale yi maa yore doole ji loolu amu fi de fii lan xam nga nu nga wooyee fii fii fii mbaxana nekkee benn palais de justice fii mbaxana nekkee benn waaw yow léegi-léegi bu dee da ngaa waxal li dara mun la kaay wuy si ma ndax li nga wax dafa garaaw ñu ne nag maa bëgg a xañ élection waaye li lu mu jotee élection gars waaye nañ bàyyi tey ni ñay dof yaa maa ko def te kenn du ko wax wala jaay mu ne déet waaye déet bu waxatoon ni diw dañ ko war a épinglé ci vingt neuf milliards du ñëw fii